waa mais man y a un truc que je ne comprends pas quoi gars yi di bëgg di cotiser pour planning defaral ma planning quoi en fait moi j'ai rien compris en fait c'est quoi délire là en fait moi quoi même la laa def même ah ba ñu war a planningal ah. waaw mais ku am assistante bu bees non bi perfect waaye non bi perfect sax xew na léegi Marodi. Marodi la léegi. cëm ak monsieur Diop rek. salaamaaleykum salaamaaleykum guys xam naa na namoon ngeen ñu mais on est en route affaire bu graaw surprise bu graaw la ñu ce sera ce samedi 8 septembre fële ci salle de cinéma Magic Law à ne surtout pas rater monsieur ak boo loo wax diffusion long métrage troisième saison Pod et Marichou gars yi l'entrée c'est sur invitation des cartons d'invitation seront offerts aux fans dans la page de la page Pod et Marichou donc gars yi bu leen ko kenn nettali restez connectés branchés di nga xam nu mu fa demee. du yomb salaam salaam waaye yéen tamit ma laaj leen moom moo li ma tamit est-ce que ma abandonné ci souffrance am doom ci souffrance gisuma ko xaw ma jëlal la nekk est doo leen ma jàppale aussi dem jëli ko sonn naa